يا ربنا صل على خير لنا ممن على على السماء السماوات العلا بالزرابيل عليك بوك جليدي بوك الاسلام روتنا طب مولانا شيخ الاسلام الحاج ابراهيم يس خيو خيو بمك مو ام تي مدينه باي دي غودك ليله القدر موي غوديك نيا فك فان اك جوروم نيار تي مدينه باي nga xamne cheikh mohammed ul hadi dom maulana cheikh ibrahim nias moko dan taxawal di ci magal waaye di ci teral ñi nga xam ne ñoom ñooy sëriñ daara yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy azatise yi ki nga xam ne nag mooy xalifaam di doomam di Cheikh Baye Hadi Niass taxaw ci tànk yooyu jël si ndigal xalifa Maulana Cheikh Ibrahim di baayam Maulana Cheikh Ahmed Tidiane ak baayam di Cheikh Mahamadul Mahi Ibrahim Niass ci teewaayi nag imam al akbar Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé. lii rek la doom ju baax mënal waajuram su demee ba gisatu ko ko neexoon nga topp ko ay wëlëreem nga topp leen baaxee ñi nga xam ne itam daf leen doon baaxee te ci loolu rek nga nekk ba guddi gi bunt la ci bunt yooyu weer wii nag dafa bëri ay ngëneel moo tax tànn bi ñu Cheikh Mouhamed Ali tànn ñu dajee fii di fàttaliku ci bis bi ngeen dégg kàddu alxuraan yooyu ci njiital suñu imaam duñu wax ne إمام الحضر دنيوهني إمام الفائدة واي من دنيوهني إمام العالم إجمع نيانا لكو نيانا سن بوكولا سبتاي بيغا خمني بسم بركلا هذه الليلة لي نفرح به وإذا جاء ولدنا الشيخ إبراهيم هادي ليكون لنا عونا في هذه الليلة المباركة لتكريم ضيوف الله ضيوف الرحمن ضيوف شهر رمضان فنحن لا نملك إلا أن ندعو الله أن ندعو الله له بمزيد التوفيق وندعو الله له بطول العمر وندعو الله له ببركته في كل حركاته وسكناته وأن ييسر له دائما ما يقدم إكراما لضيوف الرحمن في هذه الليلة المباركة. مي بس bu màgg boo xam ne ñu koy le premier juin bii nii incha allah ca Medina Baye kon nag ñu ngi leen ci o ci teewaayu autorité yu bëri ci teewaayu kilifa diine yu bëri Sénégal ak bitim réew bés bi ñu ngi leen koy yëgal mboolem njabooti Maulana Cheikh Ibrahim ak mboolem muqaddam yi ak mboolem taaliba yi ñu ngi fooglu bés boobu ci kër Maulana Cheikh Mahamadul Hadi ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe Cheikh Mahamadul Hadi Ibrahim Niass kon mbokk yi samedi le premier juin si la ñuy foglu bés boobu ñu ngi ci xaar mbooleem taalibe Cheikh Mouhamadul Hadi Ibrahima Niass ca Medina Baye yal nañu yàlla nangul suñ guddi yal nañu yàlla boole ci soppe bi yal nañu yàlla boole ci soppe Islam yal nañ nekk di taalibeem ci suñ dund ak bu ñuy dekki maa ngi sàkku ci yéen ñëpp ngeen di ma ñaanal